سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين إخوة العقيدة والإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله mbokk yi du ñu guddal dañuy nuyoo ñi fi teew ñëpp di leen ziar di leen balu xaq di leen sant tamit ci wuyu si bi nga xamante ni moom ngeen wuyu si woote lislaam bii ñu woote bu ñu nee woote lislaam nag ñu bari dinañuy xaw ni waaw woote islaam bu rax politik waaye islaam ak politique kenn mën leen tàqale tey nag sunu xarit sunu mbokk buy imaam oustaz Abdoulaye Diop moo ñuy defal waxtaan ci lan moo ñuy wax ku def lu baax kuy def lu baax ci askan wi kuy dimmale askan wi ban jeexital la am ak lan la ci yàlla wax imaam Abdoulaye Dieye lakal kalima mashkura nuyu kilifa yi toog nuyu waa saal bi góor ak jigéen mag ak ndaw su ma bàyyi moo waxoon doom ma ne ko naam mu ne ma boo ñëwee ci mbooloo da nga bëgg nuyu ñëpp bëgg tudd seen tuur mën na am nga juum walla nga fàtte ma ne ko nu may def mu ne ma waxal ñi ngi nuyu kilifa yi mu ne ko bàyyi nit a bëgg ku ko tudd mu ne ma doom kilifa mooy nit te ay nit a fi ne ba yàlla waxee inni jaailun fii ardi xalifa yàlla ne maa wàcce doomu aadama mu ma man yàlla kon kilifa mooy nit kon ñu ngi nuyu waa saal bi ñépp nag maxtar jërëjëf saw Haaji ngay jërëjëf waxtaan bi du gudd Maxtaar junj na ko kuy def lu baax te yàlla tax lan mooy résultat bi te yàlla tax nag ki ñu fi tax a daje di Abdoulaye Dieye def yi muy def yu baax moo waral tey ñu daje bëgg am luñ ci laal tuuti rekk du yàgg yàlla dafay wax ni képp ku def lu baax te bi nga koy def man maa tax man maa tax fa amma man aata wa taqa bil husna ñooñu fasanu yasiruhu lil yusra waaye suma baay def ne ma doom aaya bi pour nga dégg ko piir faaw nga yéeg ca kaw wa layli iza yaasha wa nahaari iza tajalla wa ma xalaqa zakara wal unsa inna sha'yakum la shatta imam Sarr yàlla moo njëkk a dund social yàlla njëkk a def social mënoon naa bind guddi bàyyi bëccëg ñun ñëpp ñu nekk ci guddi rek bëccëg du am mënul naa bind bëccëg bàyyi guddi guddi du am waaye def social moo tax mu bind guddi bind bëccëg bëgg su bëccëgee torse yi fay torse di nga ko taal bëccëg déedéet. yàlla guddi la wax ni nañu taal torse yi bëccëg mu ne non damay def social dama bëgg kenn ku ne gis moromam. lan moo tax su guddee nga romb ma dem ëllëg nga woo ma ni ma biig romb naa la waaye gisoo ma de waaye bu doon bëccëg faw ma gis la kon wa leyli isa yacha wa nahaari isa tajalla faaw nga jëli loolu doog a wax wa fa amma man aata mu doo a wér yàlla ne képp ku joxe fa am man aata ku joxe wa taqa bi ngay joxe nga ragal yàlla ci joxe bi mooy loxo ndeyjoor buy joxe bu càmmoñ bu mu ko yëg loxo càmmoñ bu mu yëg ni ndeyjoor joxe na mooy wa taqoo wa sadaqa bil husna ah alquran a neex gis nga yàlla joxe te yàlla tax rasul la salawatullahi alayhi wa sallam ku mu may doomam du Alioune bun Abi Alioune xëy suba génn Fatima ne ci kaw lal bi tëdd grippe gi amee ko Alioune génn di dox ñu dab ko jox ko hadiya hadiya ba ci misaal juróomi dërëm la fekk dafa fóot di yóbbu Fatima ñu consulté hôpital indi jox ko ordonnance ordonnance ba ñaata la juróomi gërëm la lan la gërënaat anin amul gërënaat mu wàcc Fatima ci lal bi génn borom kër bu ñu bindal ordonnance amul xam nga ni faaw nga génn mu génn dem bi mu génnee ñu jox ko addiya juróom alin ne am na kon njëgu ordonnance bi mu dugg pharmacie jënd ordonnance gef ko ci mbuus génn gis benn xale bu góor daanu nit ñi summi yére yi di ko upp kenn ku ne summi sa yére di ko upp Aline Yërndu laaj lii lal la ñu ne ko waa ji dafa crise te ñi ko xam nee nañ ma nga dëkk instant te moom saa yu crise dañ koy jox grenade foonal ko ko loolay tax mu wér Aline génne grenade bi joxee ko te yàlla tax mais te yàlla tax mu ñibbi këram fekk Fatima toog di mooñ mu ne ko Fatima bu ma jaaxal yow xanaa feebaroo mu ne ko Aline man su ma paree añ ba raxas samay ndab balaa may taar reer dama bëgg a dem sam papa wax ak moom Alioune tey daal da nga génn ci yoor yoor benn niir moo tiim kër gi ma ñaq lool bi ma jógee daa mel ni feebu lañ ko rocc ci man xam nga lan moo tax Alioune na nga ca àll bay def lu baax yàlla wuutu na ko këram mu ne ko balaa ngay dem sa baay bàyyil man ma dem ca sa pap Alioune génn jëm kër yonent bi taseeg salmaanul faaris salmaan yor juróom-ñeenti gërënaat mu ne ko foo jëm mu ne ko ci sang bi mu ne ko moo ma yónni mu ne ko lu xew mu ne ko nee na jibril la fa ñëw léegi yàlla nee nañ la jox juróom-ñeenti grenade yi mu ne ko non faw faaw ma denc dellu egg ci Muhammad juróom-ñeenti grenade mu ne ko waaw mu ne yàlla moo la ko jox ndax li nga def tey ci suba lu baax te yàlla tax yàlla jox la juróom-ñeenti grenade ali ni ko non nit bu defee benn bu baax te yàlla tax yàlla bu lay fay fukk la lay fay man jaa abil hasana falahu asharu amsaliha yàlla ne képp ku def lu baax benn ma fay la fukk salmaan bi am mu ne ko delloo ko du man salmaan ni ko wax nga dëgg fukki la maa dencoon benn bi dégg na aljana lu jógee rek waaye say fukk a ngi nii Ablaay ci lu baax yooyu muy def nag looloo waral daje bi ñu ñaan yàlla yal na ko yàlla jàppale yal na yàlla dolli suturaam yal na yàlla taxawu ko taxawuñu ci barke yonent yàlla Muhammad lii daal moo nekkoon tabaarakallaa nuyoo bi léegi nag alxaaji daam saaxo moo yor waxtaan bi moom la ñu jox kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xam naa su ngeen gisee ñii ma toogal ñi njëkk nuyoo nuyoo waaleel nañ ma ki doon wax sànq junju li ñu yëkkati waaye dafa am lu ñu tax a jóg am lu ñu nar a wax président de la république muy punse Macky sàll ginnaaw bi ñu ko xamalee ne ko ñun ay citoyen lañ te moom la yàlla jox dëkk bi tey ñu nangul ko ko ndax ay kilifa diine lañ ñu yor mouvement bu ñuy tudde mouvement boo xam ne ay citoyen lañ waaye mouvement religieuse pour l'émergence Thierno Omar Dem bii nekk coordinateur bi di ci dox lu am solo lii ngeen fi gis lépp li ci ëpp ginnaaw yàlla moom la ko yàlla dox mu doxal ko ñuy rafetlu it taxawaayam muy Thierno Omar Dem Cees yépp nag fu ci nekk am nañ ku ñu fa nekkal waaye tey est bii la ñuy wax yow président sa Seck yow président de la république monsieur Macky Sall dañu lay wax ne ñun fii la ñu dëkk ci Thiès bokk nañu it ci ñi nga xam ne bu dëkk bi amee problème dinañu jóg taxaw ngir mu dal ñu lay ñaan est bii nga xam ne ñun fa la ñu dëkk ak ñii fi toog joxal ñu ko président lay Ablaye Dièye Ablaye Dièye nag waxul ne ñu dem leen ngeen wax ngir nu jox ko ko waaye dañoo gis ne askan wi ñor na ko laata muy laaj itam am na lu mu jëf lu tax mu war a laaj te wax naa ne élection yii di ñëw du élection wax élection jëf la lan nga jëf ci gox yi ak goxaat yi ba war a laaj gox kon nag li nu bëgg mooy mi ngi ci jàkka yi mi ngi ci jumaa yi mi ngi ci daara yi mi ngi ci avec yi mi ngi ci association yi te kenn joxu ko benn ndomba tànk ah ku am néeg bu daanu mo ku am dëj mu ñëwal la ku am néeg bu daanu mu ñëwal la ku am ngénte mu ñëwal la ku am takk mu ñëwal la ku am soxla mu taxaw te moom président Abdoulaye Diouf kon li Omar Deme wax ne dëkk bii dootuñu seetaan ñu ñu koy yàqal ndax ay citoyen lañ dëkkuñu Mali dëkkuñu gine Sénégal la ñu dëkk cees lañu bokk ñun ñii toog nag amu ci kenn koo xam ne mën nañu laa jox lu tax nga wax waaye boo gisee lu tax nga wax xulil xaq walaw kaana murran walaw ala nafsi kon yow président de la république dañoo bëgg sa liggéey defaru te ñun bokk nañ ci ñi ànd ak yow ngir gis nañ sa taxawaay waaye daal dañu lay ñaan élection gox-goxaat yii fii di est bi joxal ñu ko président Ablaye Dièye borom mouvement gi jot na li mu yor yéene na ko askan wi laataa ñu koy jox dara li ñu yor yéene na ko askan wi te joxuñ ko benn ndomba tànk waaye ku yor li mu yor di ko jox nit ñi boo ko dollilee dara nu muy mel xanaa gën a neex jigéen ñaa ngi nii bu leen xa bu leen bu leen taxawul woon dul ñu leen gis imaam yi nag waxuñu loolu lii mouvement la boo xam ne religieuse pour l'émergence ñu yor suñ mouvement bopp kon président li nu bëgg daal mooy président Ablaye Dièye joxal ñu ko est bi ngir yàlla mu defaral ñu ko bu boobaa dinañ ci yëg suñu bopp li ñuy wax daal mooy incha allahu élection yaa ngi ñëw dem nañu bindu ji yor suñuy carte d'identité xam nañ li ñu bëgg xam nañ ki ñu bëgg muy Ablaye Dièye incha allahu moom lañ fas yéene voteel ko ngir yàlla mu defar dëkk bi Thierno Omar Dem nag lépp loo xam ne ñi ngi ko fiy def ci kàddoom lay jaar lépp luñ fi wax ci taxawaayam lay jaar. imaam Adama Sarr mii door a ñëw ñu sant ko gërëm ko imaam Abdul Qadir li waroon na ñëw waaye dafa demoon benn miraas incha allahu fas nañ yéene joxe na akooram joxe na akooram kon bu ko defee moom itam loolu mi ngi wax sama nijaay Ousseynou waaye ñoom ñëpp comme tuddoon nañ leen ah, ak Assane wax dëgg yàlla kontaan nañu lii fi toog daal ay nit lañu. yoo xam ne bokk nañu ci engagement bii lu jël imaam Makhtar Sow a ngi nii toog imaam Babacar Sine imaam Diankha imaam Adama Sarr imaam bi nga xam ne mooy imaam fay ak Serigne Cheikh Tidiane Diakhaté jóge cité Senghor waroon a ànd ak imaam Souleymane Ba waaye yàlla dogal ñu am ngant ak ñii nga xam ne ñooy waa kër yonent yàlla Muhammad Serigne Maysa Thiam a ngi nii bokk ci ñi nga xam ne ñooy làmmiñu Serigne Lamine ak ki nga xam ne imaam Ousseynou Diop di jàngalekat dëkk fii ànd ak ki nga xam ne mooy Habib Sarr di ki nga xamante ne si tàkkatu yonent yàlla Muhammad la ak Serigne moodu Diop ak ñi mu ko bokkal ñëpp kon daal lii ñuy wax mooy. point de presse bi li ko tax a jóg mooy sunu est bi ñu dénkal ñu ko ab Ablaye Dieye dinañu ko defaral ba ni ñu bëgg incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ila